jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi seen deuxième partie jàngat làmb ma di ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Baye Jili Baye Jili nuyu naa la. Ousseyn fay naa la. tey ma ñëw dalalaat la tey samedi bi tey da xaw a leer sax. waaw di di bëgg a noos rek te noosaguñu euh, di ko di ko yaakaar euh, di sant yàlla bu baax di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan wasaare làmb fépp foo mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di leen jëfal ñoom ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokk internet yi ndax du ma jug ci di wax ni doo lay jël ndox doo lay waykat public waaye doo lay wasaare làmb yéen la yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan fu waay mën a nekk ñu leen di jëfal bu baax a baax a baax gis nañ ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd nañ ko ñun di la jaajëfal Ouzin bu baax a baax di la jaajëfal bu baax a baax. noosoo guloo waaye xam naa ne boo noosee bu ñu fàttee rek. <laughs> waaw du ma leen fàtte parce que am loolu ma yaakaar incha allah rabi bu ma ci jotee ñu lépp ñu xewlu ci. ah waaw yàlla baax na yàlla nga ci jot boobu. amiin yaa rabbal aalamiin. tey ñu war a nga xamante ni mooy bawal. Hmm. Euh, bilan wu bawal mbooloo. Hmm. ndax gis nañ ren def nañ cinq komba hmm. quatre défaites. benn victoire. noo jàngatee boobu palmarès ndax boo xoolee saison bi nga xamante ni mooy 2018 2019. Mhm. defoon nañ yi nga xamante ni mooy 9 combats 4 euh, victoires 5 défaites rek ñoo def benn victoire 4 défaites noo jàngatee boobu si boobu palmarès. Euh, mbokk yi kon ñu leen di gën a leeral rek parce que dafa am ñaari bawal am na bawal bu ñu waxtaanee démb. Mhm. mooy écurie bawal écurie bii ñuy waxtaanee mooy bawal mbooloo. bawal mbooloo nag ki ko sos mooy tafaatin ndax ci ikiri bawal bee la nekkoon te ku xam bawal xam ne bawal dafa yaatu yaatu gi mu yaatu nag moo tax ñu ñu ñu xaaj ko euh, ñii dem fii ñii dem fale mais teewul ñoom ñëpp benn bopp la parce que ku ci am combat beneen équipe bi day ñëw jàppale leen euh, bawal mbooloo nag ki ko jiite mooy tafaatin tafaatin moo ko jiite mhm. daaw ñu def ci saison 2018 2019 mhm. ñoom ñu ngi ci def euh, neuf combat lañ ci def ñoom écurie Bawal am ci 4 victoire ak 5 défaites 4 victoire 5 défaites buñ ko amee daaw ci saison 2019 2020 mhm. mu doon saison boo xamante ni commencé na ba jeex écurie Bawal def loolu kon mun nañ ni baaxul ci ñoom mhm. parce que tamit euh, écurie bu mel ni écurie Bawal dafaati nekk euh, tête de file bi mu am yeneen ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi fa ñu bëriwaat ci saison bi nga xamante ni dafa gàtt loolu doon cinq mois cinq mois boobu ñu defaat ci quatre défaites benn match victoire. kon daanaka mën nañ ni écurie boobu tey ba léegi liñ doon séntu ci ñoom. gisuñu ko mhm. te écurie bi nekk na écurie boo xamante ne écurie bu am ay xale yu am talent ci làmb parce que écurie boo xamante ni boo fa tuddee alias Biram nga xamante ni champion la euh, mën a bëre. mën a xeex bu dugg see ci làmb nga xam ne kii ndaanaan la écurie boo xamante ne njaaytin a nga fa njaaytin di rakk tafaatin nga xamante ne moom it macha allah bu dugg see da ngay gis mën a bëreem gis mën a xeexam gis am jomam am talent ci làmb ku ci mel ni Zal Bambay Zal Bambay tamit noonu moom it écurie ba mu nga fa di di di bay waaram nekk xale boo xamante ne xale la mais xale bu am jom la xale bu mën a bëre la ku ci mel ni Maam Góor Diouf maam góor Diouf nga xamante ni euh, mbaam bi mu bëree woon ak xale bee di Valdo bu bu bu bu bu si nga keroog gis ngeen Valdo moo ci am ndam mais wane na jom wane na fulla Valdo keroog làmb ji sonn na ci trop trop jaabante na ci ardo ba sonn kooku di maam góor juuf am na tamit beneen xale boo xamante ni yaakaar nañ ko ci. muy bébé euh, bébé làmbaay bébé làmbaay tamit xale la boo xamante ni bëre na ñàkk waaye am na jom trop. xale la boo xamante ne ku ko jàppale ci làmb mu dem Ouzin kon écurie boobu ñuy waxtaanee tey mooy écurie Baol mbooloo bi nga xamante ne Tapha moo ko jiite. Tapha Tine nag nekk tête de file bi mais tête de file bi boo xamante ni euh, bëri na ay combat euh, combat bi mu mujjee bëre mu ngi ko bëre ak Yékini Junior depuis bi mu jógee ci sorteem bi moom ak Ama Balde dal ci Zos bëri Yékini Junior bi mu bëri Yékini Junior nag am na ci combat boo xamante ni ñu ngi ko bëri woon fële ci stade euh, du bari bu Géejawaay mu daan Yékini Junior combat bu rëy bu amul benn werante tey nag mu dox ba xam ne làmb am na ñu ngi ko mën a booleel mais am na ci ñoo xamante ni mu ngi leen di séentu mënu leen a jot mu jël kii di booy Niang équipe boobu nag fi mu toll nii dafa jot surtout ñoom bawal mbooloo ñu xoolaat beru bi ñu beru lan lañ ci gagné mais beru bi ñu bari beru lan lañ ci perte parce que ñu ngi seetlu ni ku ci mel ni Pierre Omez foofu la nekkoon nekkoon seen entraîneur doon tàggat xale yi am na ci ñeneen ñoo xamante ni fi mu toll nii ña nga fa mais ña ngay góor góorgóorlu kon moo lay wan ni équilibre ba fi mu toll nii am na jéego bu ñuy def jëm ci kanam waaye des na lool lool lool lool xale yi fa nekk war nañoo liggéeyaat Ousseyn bu baax a baax a baax a baax. bàyyi jili comme ni nga ko waxee gis naa la sànq nga développé ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci équipe bi hmm. mais balaa loolu damay ñëw ci ñi nga xamante ni ñi jot nañoo bëre te am ci ay défaite hmm. ki nga ak Bébé Lambaay ñagas ak étudiant hmm. quatre yooyu boo xale yoo xamante ni nii dañoo am cër ci làmb te ñoom ñëpp seen sortie yi dañ koo génn ñàkk ko noo gisee loolu quatre combats quatre défaites benn victoire noo gisee ñi nga xam xale yi nga xamante ni dañoo ñàkk ñu njëkkee ci ki nga xamante ni mooy ñagas waaw Ouzin ñagas boo xoolee combat bi mu bëree ak caatu waalo ñu waxante dëgg rek euh, te làmb nag moo ñu fi tax a toog te làmb wax dëgg mbër bu nekk ci état ñu gis ko xam ni kii nee na ci état day ñëw ñu kii kat mu ngi ci état de forme bu mucc ayib ndam nag yàlla moo ko yor parce que mbër dina entraîner dem fi war a dem ñëw ba ci bis ba yàlla suñu borom xañ ko te teewul képp ku ko gis day xam ni kii kat mu ngi woon ci état de forme bu am solo. Euh, boo ko xoolee ci combat Modou Lo ak Ama Sène malgré Modou Lo daan na Ama Sène parce que dóor na ko mu daanu. Mhm. te keroog képp ku nekk ci làmb ji doon sportif xam nga ni Ama Sène indi na état de forme bu jaar yoon. Mhm. préparé na kombaam ak ay mbokkam jox na ko cër bi mu moom ba keroog bi mu ñëwee ci làmb ji ñàkk na. kon xam nga Ama seen jour boobu dañ ko dañ koy encourager rek parce que xam ni làmb moo demee noonu tey Zal Bambay. Euh, nu mu tuddati ñagas suy bëreeg caatuwaalo mu ñëw ci làmb ja mhm. ñu xam ne ñagas weex xàtt la def Ousseyn ñagas waaw ñagas bi bëri woon ak Pape Cambrène keroog stade Diom Iba Mar Diop euh, suma papa Bekaay maa ngi koy nuyu keroog da la wax naan nañ leen tee Pape Cambrène parce que vraiment dóor yi métti woon na trop mhm. li ko ñagas tegoon métti na trop diisoon na trop ci moom Pape Cambrène ba ñagas am ci ndam mhm. képp kuy bëreeg ñagas da ngay sóoraale ni yow mi far fos di nga ñam ñu dem bay gis ñagas boo xamante ne ci làmb mu war a bëreeg euh, mu war a bëreeg xale bi caatu mu ñëw ci làmb ja Ouzin ñagas simmeeku gisuñ ñagas bi ñu gisoon mu mel ni ñagas ni entraînement am des na parce que li ñu gis wax dëgg moom la ñuy wax entraînement bi ñu gis ci ñagas keroog des na trop caatu waalo mi muy bëreel mu simeeku ñu gis état de forme bu jaari yoon. parce que est-ce dafa bëggoon dafa bëggoon def sorti te parewul. Hmm. parce que maa la koy wax est-ce que est que parce que Ouzin combat bi diire na. te combat bu diiree bu fekkee parewoo woo rek jarul ngay jël avance jàmbur parce que mbër mu ndaw moom du préparé wu day pare parce que saa chaque jour promoteur mun naa xëy combat avorté mu ne la kaay damaa bëgg nga bëree ma combat bi mhm. kon bu fekkee pare jarul jarul sax ngay ngay xuus ci làmb ji te xam ne doo ci am dara caatuwaale keroog maa la koy wax boo xoolee interview bi ñu bi ñu demee làmb ja maa ngi yow ñoo doon euh, reporter làmb ji mais maa ngi du takk ñu ngemb bëriwuñu mais ñaari mbër mën nañoo simmeeku ci digg géew bi. ñu xam ñu lan moo lan moo waral loolu. parce que dañuy liir làmb ji. parce que da xam ni kii kat mm-hmm. état bi mu yor ak adversaire am bi xëy na ndam xamuñu kan moo ko yor yàlla dong moo yor ndam mais ñaari mbër yi bu ñu simmeekoo boo defee sa analyse bu dee yaa ngi jàng athlète di nga xam ni combat bii kat du ma ci juum. a waral juumuñu ci combat bi ba ñagas eh, xeex la amoon ci làmb ji bi mu ñëwee Caatu Waalo benn voyage la ko def jàpp ko pivoté ak moom daan ko jël bu amul benn weneen te ñagas boo xoolee maa ngi lay wax naa la hmm. kii di ñagas parce xam ne Caatu Waalo xale yi des fois dama leen di gis ñu ñëw nga laaj leen kii bëgg ñu ne xamuma ko hmm. est-ce ñoom xale yi jotul ñu def ñu amee combat ñu dem gëstu xool ki ñu bëyal kan la wala kii lan la gën a mënee mais xale est-ce que dinañ def loolu dem gëstu ji ci làmb non àndu ànduma ci ñagas xamul caatuwaal xam na ko bu baax parce que làmb jàpp si xam na ko xam koo tax mu jël avance bi parce que hmm. bu ko xamul ay mbokkam xam nañ ko parce que boo jëlee combat boo xam ne grand combat ngay bëri arène national arène national du stade bu ndaw parce que boo xoolee arène national ni mu toll ñu jël ñaari xale boole leen fa te la boole caatuwaalo ak ak ñagas ñagas bi muy jël avance xam na bu baax kan mooy caatuwaalo xam na bu baax lan la caatuwaalo mënee xam na fan la ko war a mën a jaar ba daan ko mais mbër moom boo parewul rek parewoo mu baal ma ci kàddu bi mais ñagas keroog bi muy ñëw ci làmb ja ku ko xool xam ni parewul xaw ma nag équipe bi nan lañ ko waajalee nan lañ ko indee mais vraiment keroog vrai ñagas bi ñu doon gis ci làmb ñagas bu oos ñagas bu mun ambiance ñagas bu mun a bëre ñagas bu mun a xeex ñagas bi nga xamante ni day bëre ba mbaa bi jeex te du bàyyi gisuñu ko woon ci diggante mag caatuwaala ñu ñëwaat ci keneen koo xamante ne mooy Zal Bambey Zal Bambay su ma juumul mu ngi mujjee bëreeg Aada Boy Bawol Aada Boy Bawol la mujjee bëreel combat boobu yaa nga fa woon ca euh, ca stade Diop Iba Mar Diop mhm. ñu bëri ñoom ñaar Zal Bambay xëy na jël na xale boo xamante ni dafa nekk ci yoon ko parce que boo xoolee mm. euh, ni mu bëree ak moom mm. wet gi mu koy jox mm. te wóoluwu ko Zal Bambay dafa ñëw ba ci làmb ji mu réservé wu boppam nanguwul wane li nekk ci moom que ba booy bi daane ko jël boo xamante ni moom comprendre waa Bawol yëpp keroog dañoo mere Mm-hmm. mooy défaite boo xamante ni man mun naa ko pardonner Zal Bambay. Mm. li tax ma mun ko ko pardonner mooy dafa bëre xale boo xamante ne aada booy bawol dafa nekk ci yoon. Mm-hmm. mu ngi écrit dóor dóoraat mais làmb li traditionnel fu mu am xale bi daf fay dem. dafay dem wane boppam. Mm-hmm. day compétir tout le temps euh, Zal Bambay jël na ko mais pour man bi mu koy jël xëy na dese na koo xam bu baax. parce que aada booy bawol combat bi ci bari top cinq la dugg. parce que ku mu ci bëree rek dafa dafa nekk mbër moo xam ne mbëru tànk la mbërëm bu ci bari tànkam la te boo jëlee tànk bi taxul nga daan ko keroog moo tax war na ko kii di Zal mbay bëreeg moom daan ko jël bu rëy bëreeg moom bëree tànk Euh, mbot ko daan ko jël boo xamante ne amul benn werante ñu koy ñu koy encouragé waat bu baax a baax a baax muy wane ni nag ba ba tey xale yi am na ci ñoo xamante ne dinañ am ndam nga xam ne ñii mérité nañ ko des fois ñu am ndam nga xam ni sens moo lañ ci génne keroog Zal Bambay bi muy bëree vraiment indi na état de forme boo xamante ne état de forme bu jaar yoon la euh, ànd naag ay mbokkam préparé na préparé préparation bu baax mais keroog bi mu ñëwee aada booy bawol la yàlla àndal ñu koy encouragé waat moom Zal Bambay di góor góorlu ci entraînement yi te xam ne équipe bi mu nekk muy équipe Bawol mbooloo am na fu ñu ko teg te bi bu ko gëmee jàpp ci fépp fi ñuy dégg li li comme waa waa Bawol gépp tafaa tafaati ñu ngi koy woowee naan ko euh, baajo bi képp fu ñuy dégg baajo bi rek mun nañ ko faa dégg moom moom Zal Bambey mu góor góorluwaat bu baax a baax a baax am na xale yoo xam te ne daanu nañ ci ñoom tamit kii di bébé làmbaay ak étudiant mais yooyu dañ koy kii ñu ñëw ci ñi nga xamante ni nii mooy ténor yi hmm. ténor bawol mbooloo yi hmm. ku ci mel ni Tapha Tine Ndiaye Tine Tapha Leer Socé Mané hmm. ak euh, Alliance Birame ñoo ñëpp ñu nekk ñi nga xamante ni nii bawol mbooloo dafa am ci ñoom yaakaar te ren ñoom ñëpp kenn gisu leen saison bi li mu gàtt la wala boog adversaire yi la mooy tax ñoom gisuñu leen ak palmarès bi ni mu demee ñoom ñëpp kenn kenn bëriwu ci ren waaw Ouzin combat bi boo xoolee diggante euh, Ndiaye Ndiaye Tine. Tine nga xam ne mooy rakku Tapha Tine. Mhm. yor na yor na taay bi yor na gabari bi am na bëri bu ne ci moom mais fi mu war a teg làmb tuuti pour mu teg ko fa. Euh, faw mu góorgóorlu ci làmb parce que làmb làmb du tafaatin mooy suma mag rek mhm. euh, boo duggsee ci làmb day tax xale yi di la seetaan wala déedéet làmb euh, day doon loo xamante ni xëy na gaa direct da ciy bokk mhm. mais bëri na ci mbër yoo xamante ni amuñu papay mbër amuñu nijaayu mbër amuñu amuñu kenn koo xamante ni ku leen seen entourage dafa doon dañoo doon ay mbër mais seen bëgg-bëgg. ak mhm. seen jom ak seen fulla ak seen fayda moo leen di may li ñu am ci làmb. Ndiaye boo xoolee euh, Tapha Tine mooy magam. Mhm. mais fi ñu ko doon séentu ci làmb ba tey des na parce que gisaguñu njaaytin Tine dëgg-dëgg mu wane boppam. combat yu bëree bëree bëri. day ñëw mën a fësal xeex bi ba mu ëpp. day fësal xeex bi te am na bëre boo xamante ni mu ngi ci moom te ñu ngi koy séentu ci moom mais bëre bi ba léegi Ndiaye Tine waneegu ko. yaa ngi wax léegi ci xale bi nga xamante ne mooy Socé Mané Socé Mané tamit champion la équipe ba dafa am champion tudd Socé Mané tudd Ndiaye tudd ak keneen koo xamante ne maam góor Diouf gis nañ koo gis ci làmb. maam góor Diouf moom bàyyiwul maam góor bàyyiwul parce que keroog bi mu ñëwee stade Diom Iba Mar dama gis beneen maam góor juuf mais man ci suma bopp maam góor Diouf dafa ma mujjee réer parce que maa ngi koy xool naan kii de am na fu ma ko xàmmee. kii de am na fu ma ko xàmmee bi ma ñëwee ba jege ko laay doo ko xam ne maam góor juuf la muy wane ni làmb bàyyi nañ ko xel ba tey parce que bi mu dugg see ñëpp a daw di ko dëkk. mu gi waa Bawol mbooloo gépp dañ ko mujjee dugal ci ci ruq. am na fu mu toll ci làmb nag. moo c'est ça ñu bàyyi ko. fu ci làmb parce que bëgguñu xale yu ndaw yi. nga xamante ni mooy Balla Gaye Mm, maam Góor Diouf bëri na ak Balla Gaye 2 ak Balla Gaye 2 euh, mu ngi mujjee mu ngi mujjee bëri ci combat bi ma seetaan su ma juumul mu ngi mujjee bëri ak Valdo. Valdo keroog Valdo combat bi métti woon na ci moom trop trop trop trop lamb ju yàgg ja waaw lamb ju yàgg la mu jaabante ardo combat bi métti woon ci moom trop mais keroog yàlla Valdo la yàlla may ndam mais maam Góor Diouf keroog da xam ne euh, démérité wane woon na lépp lu nga xamante ni war na ci mun a am ndam mais keroog amu ci ndam muy wane ni rek ay naanaan ñu ngi ci écurie ba ay xale dafa leer dafa mujj naa ba ki nga xamante ni mooy bébé Balla mhm. seen lambu ju métti dafee ci arène nationale ba mhm. arène nationale la mujjee bëre dafa leer ak euh, fils de Balla fils de Balla daan ko euh, jël bu amul benn werante keroog depuis boobu ba léegi gisuñu dafa leer te Ousseyn dafa dafa nekkoon mbër boo xamante ni euh, làmb duñ koo bàyyi woon xel. lamb boobu kese wuñ fee dégg. déedéet Fils de Balla moo ko moo ko moo ko daan Fils de Balla moo am ndam parce que euh, xëy na coow amoon na ci mu dugal recours mais ndam li Fils de moo ko mujjee gàddu Tapha Leer dafa nekk mbër moo xamante ne Ouzin làmb dañ koo dañ koo yaakaar. mais moom est-ce que retardul Leer parce que boo xoolee amoon na fi allir boo xamante ni nii moom yaakaar naa fii bu ñu nee Tapha Tine moo woon topp ci ginnaaw mais boobu ak léegi dafa xaw a ralentir Tapha Tine euh, kii di Tapha Leer fi mu war demee rek. day perte làmb jooju lan mooy problème moom dafa desee jël affaire au sérieux wala. cest à bi muy jógee dafa dafa nekkoon ci lancé bu baax bëri ay combat yu metti am ci ndam bëreeg ay ndaanaan parce que boo xoolee keroog bi muy bëreeg stade Diom Iba Mar Diop digganteem jëf jël bu fekkee ma ci boole bi mu ñëwee keroog bi mu simmee dangay xam ni kii lépp mbër mu ngi ci moom am na taay bi am na corpulence bi. am na doole ji am na lépp loo xamante ni da nga koy séntu ci mbër da nga koy gis ci Tapha mais depuis mu bëree combat yooyu ba pare bëriwaat combat am ak Fils de Balla euh, bëri ak xale bii nga xamante ni mooy gàmmu Gueye ñu ngi mujjee woon bëree ci ñoom ñaar stade Demba Diop lañ bëre gàmmu Gueye daan ko gisatoo jëmmi Tapha Leer bu baax. da ngay gis ni tafaaleer bi kat dafa mel ni am na ci leneen loo xamante ni manqué na ko li ko manqué nag ñun xamuñu ko moom moo ko xam mais mbër moom chaque jour boo boo amee lu la manqué da ngay ànd ak say mbokk dem xooli ko defaraat ko ba mën a duggaat ci làmb parce que tafaaleer ba tey ji may wax yow Ouzin xale la làmb am nañ ci moom yaakaar am na cër ci làmb te bawul mbooloo aussi am na fu ñu ko teg kon liy waral mooy na ñëwaat ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam du duggaat ci équilibre entraîné comme ni mu ko daan defee combat am wonewaat boppam wone sa bopp nag du du caagi ñu da daan wala ñu daan la mais boo ñëwee ci làmb ji ñu xam ne kii mbër la boo simee ko ñu gis jëmmi athlète ci yow mbooloo mu bari topp la boo bëree nag ndam moom yàlla moo ko yor am na nooy sabab loo rek Ouzin ànd ak say mbokk entraîné boo xefee incha allah boo ñëwee ci làmb ji lépp loo ci bëgg rek di nga ko am te làmb noonu la Baye Jili ñoo ngi woon ci ñagas. ñagas combat moo caatuwaalo bu bëree ko anam boo xamante ni nii tegu ko fenn. man ci ni ma ko gisee bi laa mujj jeexee. làmb mujj jooju bëgg naa ki nga xamante ne mooy sama réalisateur kàggu mën nañ dem xooli kombaa bi te ñëw. boo xoolee caatuwaalo yi noonu ci digg géew gi moom ñagas caatuwaalo moo ñu féete à droite ñagas féete ñu à gauche Baye làmb jaa ngi noonu. Ousseyn mooy li ma la wax rek xoolal ñaari état de forme ñaari mbëri mhm. boo gisee caatuwaalo mu ngi nin bat mhm. nga xool gis nga musculi xam ni macha allah xale bi entraîné gis nga ñagas aussi ñagas mi ñu xamoon gis nga état de forme bi mu indi ci combat bi mhm. ñoom ñaar ñi bu ñu taxawee nga xam ni caatuwaalo dafa gën a pare combat bi xoolal caatuwaalo état de forme bi ñu wax ñu waxtaan rek ci koo xamante ni euh, yaa ngi seetaan làmb wala yaa ngi analyser xoolal ñagas biir bi ak ñagas état de forme yi mu doon indi ci làmb moo tax arbitre bi sifflé na caatuwaalo moo la féete ndijoor ñagas moo la féete càmmoñ xoolal ñagas léewtoo na ba pare léemu na ma ngay teg tànk di dem teg tànk bi yëpp da ngay xam ni combat bi ci xeex la la mën a gañee combat bi gis nga ñu ngi demee tamit perte repère ndax boo xoolee xaw naa gëj a bëri moom nga xamante ni mooy ñagas est ce que perte ay ci làmb boo ñëwee ñu ci bëri loolu lañ wax. ñagas mm. gëj na bëri est ce que dina na ko. Mm. si euh, pour man pour man entraînement boo ko defee ni nga ko war a defee rek boo ñëwee ci làmb perte repère rek yooyu. te doole day yokk fit mun naa waaw kay. doole day yokk fit mun na gaa na nekk ci làmb. Mm. mais am na lu ko gën li ko gën mooy nga pare boo parewee rek Ousseyn doo mës a perte repère ci làmb parce que am na ci mbër yoo xamante ne certes gën nañoo bëri mais buñ dugg see ci làmb état de forme bu ñu yor. duñ mës a perte repère xoolal caatuwaale ni muy liiree combat. concentré wu. ba pare jàkkaarloo ñagas xam na ni ñagas day xeex. Mhm. te caatuwaale benn song la ko bëgg a song mais xoolal caatuwaale ni muy déplacé. ak bi mu ko may. may na ko distance parce que ñagas dafa njool. te caatuwaale la dafa gàtt moom tamit caatuwaale xeex bi la doon daw may ko distance parce que dafa xam ni ñagas tout tard day xeex. Mm-hmm. gis nga arbitre bi mu leen naan dajaleen dajaleen parce que xam na ni tôt ou tard euh, ñagas day xeex léegi faw nga xañ ko xeex bi ba pare di ko jege bu bëggee bu bëggee armée ba ba nga xam ni kii day waaj dóor nga dagg léewtoo bi boo daggee léewtoo bi boo arrière dootul mën a natt natt bi muy natt daf koy réer gis nga ñagas mu ngi tàllal loxo droite bi bëgg na koo jàpp mais jàpp bi mooy na taxaw rek bu caatuwaala taxawee bu ko sasee gauche dóor ko droite coup bi mun naa dal te bu dalee li mu bëgg dina ko am calcul bi bi bi ñagas di def bu bëgg ko dóo moom la caatuwaala gis nga calcul bi muy def bu ko bu nattee hmm. yàq calcul bi hmm. moo tax gis nga léegi gis ko xool Ousseyn a jeexal fi mu taxaw ba tey jugewu fa hmm. mu ngi déplacé jug taxaw jodd ñagas mu ngi wàcc parce que xam na ni tôt ou tard Caatu ci tànk ba la jëm te léegi moom xam na ni ci tànk ba la jëm mais mu nga bëgg a xeex te léegi gis nga sànniwaat na Caatu Waalo mu ngi koy mu ngi koy gën a ubbil garde bi di ko may pour ñagas ñëw ñagas léegi bu xàccee nag ba jege Caatu bu dóoree rek Caatu bu dajeeg moom làmb ji dafay dafa yomb gis gis nga lépp bëgg xeex rek lépp bëgg a xeex rek gis nga Caatu Waalo ma ngay seere gàllaaj yi mais teewul mu ngi koy liir xam na fi mu mën a jaar ñagas na combat bi bu doon man maay moom fi mu toll nii day fermer garde bi taxaw di ko déglu doo bëgg a jeexal combat bi parce que da ngaa gëj bëre te perte nga repère bu bari ci làmb mais gis nga du def loolu parce que boobu yaakaar na ni ñagas mu xamoon ba léegi ñagas moom mu ngi fi gis nga ñu ngi léewatoo ñoom ñaar ñu ngi demee wet Ousseyn. te boo xoolee kii di kii di ñagas day sonn ci loto gisoo bu bu sëggee loto bi jaay day mel ni ku siggi. Hmm. est-ce que contact bi doyoon na ci moom. njool la ak est-ce bi doyoon na. njool la ak ndaama entraînement bi fi mu toll nii li nga jot a entraîné yëpp da lay. nga contrat bi mooy nga ñëw bëre. Ah gis nga Aliou caatuwaalo xool ko xoolal ñagas gis nga ni mu siggee sëgg bu sëgg bi arrangé wu ko mais caatuwaalo du sëgg du sëgg benn yoon day siggi rek. gis nga day sigg rek taxaw gis nga ñaka siggi na sigg boobu nag moo lay wan ni sëgg bi mu sëgg bu yàgg ak gàllaaj yi nekk ci ndigg li dafay jàpp daf koy jàpp ok léegi nag mbër bu entraîné Ousseyn fii lay feeñee mbër bu entraîné carrément ci combat lu combat bi di gën di diire mu lay gën di arrangé gis nga fi mu toll ni caatuwaalo moom la combat gis nga mu ngi ci combat fi mu ci combat gis nga ñaka siggi na instant yi mënatuloo sëgg gis nga jël na tànkam gis nga parce que bi gis nga Ousseyn gis nga noonu la ko daanee jël bu amul benn werante parce que bu sigg bi la bëgg Caatu sigg bi la bëgg gis nga mooy li ma la da wax ci biir combat bi benn song la koy song jàpp ko rotation ak moom daan ko jël bu amul benn werante xale boobu mooy caatuwaala Waalo jël bu amul benn werante la daan ñagas mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci ki nga xamante ni mooy Tapha Tine seen tête de film hmm. jël na xale boo xamante ni nii daaw def naa ne balance ren ñu ñëw di wax mook la de dégg nañ fi wax ñu fi wax ñoom ñaar ñu jóge foofu jékki-jékki su combat mook ama moo moo ki nga xamante ni mooy Boy Niang taxaw. Hmm. est-ce que combat boobu xaar nañ ko Tapha Tine Boy Niang. déedéet xaaruñu ko woon de wax dëgg parce que euh, wax naa ko ci bi nga ñëwee seet si ma ci période tabaski bi. Hmm. ñu ci bari ci ci ñi ñi commentaire làmb <laughs> jàpp nañ ni euh, Boy Niang. mais ñu taxawaloo sama mbër waaw ñu ci bari wax nañ ko <laughs> waaye man lañ ko mujjee wax Ouzin te man maa ah. gën a nekk xale ci làmb sama papa Bekaay doon nañu wax ni booy Niang la faral mhm. Modou mbay doomu Bekaay mbay wax nañ ko fi ni booy ñaa la faral ba mu waral ko combat booy ñaa ak Sa Thiès mu dem ci open press Sa Thiès ñu jàpp ko fa bëgg ko fa néewal doole moo lay wax ni làmb mais est-ce que nekkul qualité Boy Niang bi génnee moo tax ñu bëgg laa féetale ci moom waaw parce que ku xam di seetaan làmb suivre làmb ñu dindi far tege na le dangay xam ni booy Niang champion la. parce que ñun man wax dëgg bu fekkee damaa faral booy Niang te chaque jour ma koy woo pour am ko interview mënu koo am kon faral di ma faral Boy Niang amalatuma njariñ ci làmb. Hmm. te làmb maa ngi waat ci yàlla ni suñ toll nii képp ku ma ne dama laa faral rek damay wax lu la neex mais faraluma mbër ci làmb parce que fi mu toll nii fii ma toog fii laa faral man wasaare làmb laa faral te làmb laa fi nekkal ndax bu dul woon ak làmb fi mu toll nii kenn du tudd jiili. Mm-hmm. Euh, booy Niang ak tafaatin Tine dafa doon combat boo xamante ni euh, ñu ci bari dañoo bëggoon grand contre petit. Mm-hmm. muy Balla Gaye 2 ak Tapha ak Boy ak Tapha ñu bari bëggoon nañ ko. Tafatin mosul bërëg la de Guiers 2 Tafatin musul bërëg Gris Bordeaux bëri na ñoo xamante ne ñu ngi wootee ah, ténor ci làmb musul bërëg moom Tafatin musul bërëg Eumeu Sène mhm. Tafatin musul bërëg moom lu ñu wax moom Modou loo sax mosul bëreek Modou Lo ba ndaanaan yooyu nga tudd ci làmb yëpp tafaatin musul bëreeg ñoom amul mm-hmm. sens bëreeg ñoom te bëri naag Bombardier daan ko mm-hmm. te ñoom ñooñu ñëpp combinaison boobu ñëpp bëri nañu Bombardier mm-hmm. Gris Bordeaux bëri naag Bombardier Modou Lo bëri naag Bombardier Eumeu Sène bëri naag Bombardier Balla Gaye 2 bëri naag Bombardier tafaatin Balla Gaye la fi bëreel ak Bombardier daan Bombardier Balla Gaye daan ko kon war naa mën a bëri ñoom revanche ak ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers numéro lu jaadu woon la mais comme fi mu toll nii euh, ñuy ñuy siyaar bu baax a baax a baax euh, waa Leewtoo production ñuy ñuy siyaar bu baax a baax a baax Pape Thialis moom mi nga xamante ni moom moo ko jiite doon seen kilifa def na combat bu am solo muy Boy Niang ak Lac de Guiers 2 de dafa duggoon Pikine Mm-hmm. Ouzin am loo xamante ni amoon na ko fa muy mbégteel xale bu ndaw daan ko xale bi ko daan mooy ki nga xamante ni mooy Ama balde mu doon lu ko metti defet boo xamante ni ba tey jii boo koy laaj loolu gën a metti sa làmb danaa la sama defet ak kii di euh, kii di euh, Ama Baldé tey mu jël Tapha Tine Tapha Tine jël Boy Niang Boy Niang ne ko li nga duggoon Pikine bëreeg Ama Balde mu daan la. dinaa la def lu gën a pire. yow tey su ma bëreeg yow ba pare dootoo duggati Pikine Tapha Tine ko dangaa ngaa li ngay wax parce que dafa am loo xamante ne am naa ko biir Pikine te euh, du yow yaa may téye du yow nag. année balance moo ñu boole parce que am naa problème mu combat aw ma adversaire ñu proposé ma parce que te Ouzin loo ci xamul. Mhm. Tapha dafa bëggoon jël Ama Balde. ba nangu na ci kase. waaw ba Ama Baldé dem di jëli tafaatin am ay gàkk-gàkk yoo xamante ni wala ay gàllankoor yoo xamante ni dugg na ci diggante ba combat boobu mujjewul am. Ousseyn mu doon loo xamante ni combat bu neex la ñoom ñaari doom ñoom ñaari xale yi kii di doomu Bawal euh, kii di doomu pikin ñoom ñaar ñu waral laale parce que nag loo mën a dégg mooy euh, kii di Boy Niang li mu bëgg mooy yegg ci kaw yegg ci kaw nag fi mu toll nii euh, kenn. pareegul pour may ko sens mais tafaatin jël na ko pour may ko sens. Mhm. sens bi ko tafaatin may ba xam booy ñaan nu mu ciy def day day ñëw jaar ci kaw tafaatin jàll wala tafaatin da koy wan nii li ma metti woon biir Pikine ci yow laa koy fajee loo ci mën a dégg mooy combat boobu àdduna bi yëpp ñu ngi koy xaar te yàlla nañu yàlla may tal ak fekkee ba ñu yegg ceeg jàmm akub salaam. jërëjëf mbokk yi kon noonu lañ leen di jëfalee eh, ci weekend bi samedi bi tey ñu leen di jëfal ba altine ak jàmm akub salaam ci beneen njàngat làmb xëy na bàyyi jili dina fi nekk ñëwaat toog Ousin nekk fi soxna Fatima ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax fu waay mën a nekk di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngatu làmb jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf gis ngeen ko noonu lay demee ba incha allah. ci beneen semaine beneen jàngat làmb ak Baye Djilé ak Ousin ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy Fatima jaa ngeen jëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax jëf